taxaw foofu. Mhm. Euh, c'est vrai que sa yaay nekkatu fi yàlla na suuf oyof si kawam. Mhm. Euh, ban souvenir nga am si moom benn. Mhm. wala aujourd'hui ni yaay di éduquer doomam. di ko inculquer ay valeurs aujourd'hui yan valeur la sa yaay def si yow nga xamante ni nekk nga ci ay situation nga conserver toujours ces mêmes valeurs là nga xam ni lii sama yaay moo ko def ci man. question bu metti la parce que ku mu bëgg sama émission yàqu rek da <laughs> ngay insister ci côté yaay bi naa def effort nag. Mhm. parce que waxtaan bi c'est très important pour moi et c'est sérieux euh, pour bañ ki kii euh, waaw pour maintenir euh, momentum bi ndax. mais euh, man plus grand souvenir ma am mooy ay ay troisième ay euh, CM1. Mhm. ñuy distribution des prix sama yaay ñëw indaale benn saak bu ndaw parce que xam nañ nañ ma jox ay prix ñu jox ma prix yi. ba prix prix commencé fee saag bi ba amatul fu mu koy teg mu jël benn sër bu mu indi woon réserve mu lal ko def ci prix yi ba mu kii mu takk ko gis nga bu yëkkatee nii ba teg ko ci bopp bi sourire bi muy dóor ak mbégte bi nekk ci moom ak fierté bi nekk ci moom Euh, ma topp ci ginnaawam nag ñuy waaxu mu mu nekk vrai femme Haalpulaar bu nekk dakaar boot boot kiyam euh, nu mu tëti euh, gàddu bagage teg ci boppam fu mu romb yeneen maire naan ko ah ay Cheikh kay félicitation ak yooyu tout ça loolu moom c'est impérissable inoubliable mm-hmm. te sama yaay jàngul école mm-hmm. xam mais xamoon na valeur école fa amoon importance ci moom di ma encouragé mm-hmm. beneen souvenir mooy sama sama yaay li mu def presque quarante ans en milieu wolof te déggul wolof pulaar waaw mais de daan na góorgóorlu nag parce que li ma jaaxal mooy xaritu wolofam yi day ñëw seet si ko ñuy waxtaan mhm. kii di làkk wolof kii di làkk pulaar ñu déggante ma ne ça c'est la beauté du Sénégal bu ma nekkee école militaire sama xarit yi nga xam ne sama promotionnaire yi bu ñu buggoon dara mhm. te mënuñu ko am dañuy dem sama yaay maire mhm. bi leen leen làkk pulaar on mbay nan de cheikh non non maire Cheikh bind nañu lettre te ah ndeysaan ndeysaan après gars yi ne ko waa ah, maire Rougui nga ne Cheikh salan la mu ne Cheikh su ma kol la gars yi ree <laughs> <laughs> gars yi ree kii yooyu après dem seen yoon après bu ma ñëwee ñu ma koy nettali. yan valeur la def ci ah, ah, euh, humilité d'abord modestie bëgg sa bopp xam sa bopp respecter nit ñi respect lu may wax gars yi toujours dund naa ak cette femme là ba mu génn àdduna mosuma ko dégg mu saaga. ah bon mosuma ko dégg mu saaga. non te dama koy témoigner loolu. bu mu meree ba mer xam nga Cheikh kii moo doy waar. kii moo doy waar daal du ko weesu. kii moo doy bu ko ku ko jaaxal dëgg mu ne kii moo doy waar mais saaga. Mm. mosuma ko dégg ci làmmiñam moo tax ma ne gars yi ni ma mel nii ñu ma ay diplomatie moo la changé. Mm. yow doo mer doo saaga doo xuloog yooyu. Mm-hmm. ma ne mais dama ko presque dama ko nàmp. sam papa c'est un homme très réservé très religieux. Euh, Cheikh Oumar Fouti yu moo doon léppam famille omarienne Seydou Nourou Tall def ko presque doomam moom loolu la xamoon moom côté boobu moom tamit mënul permettre boppam di saaga di wax lu ñaaw ak macha allah donc sant yàlla daal c'est important dafay wane rek éducation bi parents di def si doom dafa mhm. dafa am solo parce que buñ fi nekkatul sax euh, day tax nga nga mën a wëy mhm. am benn éducation bu baax